Rewmi 24 TV daal leen ak jàmm mbokk yi dimanche 9 juillet 2023 prison bu rëbës jamono yi daal lu doy doy waar moom moo fa am ñi nga xam ne rek ñoom ñooy prisonniers yi ña ngay ñaxtu ña ngay yëngal ci biir daal ndax la waral loole daal du yoon la ñu wax ndax espace la ñu amul ndax bu ñu xoolee rek arrestation yi daal ci mois bi ñu nekk nii rek muy juin muy juillet daal dinay wexaat ci askanu Sénégal ndax ñu ñu arrêté dañu bari lool ba fi mu nekk daal plus de 700 prisonniers yoo xam ne rek ñoom dañ leen arrêté ci mois ñaari weer yi ñu génn kon bokk prisonnier jamono yi daal ña ngay ñaxtu ak di naqaru daal seen tàncaloo bu metti bopp rek nga xam ne daal dina leen koy def fële ca prison bu rëbës ndax ña ngay xam ne espace amu fa ben yoon fofu dafa xat xat boo xam ne rek foo ko takk weesu na ko ñoom ñi ngi ñaxtu jamono yi nag ñu fexe rek nu leen dimbalee ndax foofu daal dinay metti loolu ndax daal ñañu boole ci ay néeg yépp daal xajuñu fa fi mu toll nii dafa saturé espace boo xam rek ñoom mën nañ faa taxaw sax amuñu ko foo rek weesu na ko kon dal di sàkku ci suñu njiit yi ñu gessu ñi nga xamne rek daanaka ñoom ñooy ñoo ñooñu xam ne yoon da leen a teg loxo di xam ne ci askan bi la ñuy génnee ca fa la ñuy jëmaat ci xam ne tamit loolu jombul kenn prison daal jombul kenn ku ne rek mën nga xëy dem fa doo xam yaa xam def nga yaa xam defoo kon daal loolee nga xam ne moom ma xew ca prison bu rëbës daal métti na lool ñu bari ci askan bi nag ñi ngi naqaru loole rek nga xam ne daal dina fay am